asaka nag nañu xam ne alquran wax na ci sunna yonent bi wax na ci borom xam-xam yépp maase nañ wax ci alquran nee farata la sunna nee farata la borom xam-xam yi nee nee farata alquran gis sunu borom di wax ci azak dafa mel ni sax azak ak julli dañuy ay cheikh néew na lu ñuy wax ci julli te du ca toxal azak wa aqimu salata wa aatu zakata warkau maa raakiin kon alquran wax na ko sunna dafa am bis jibril soppiku jëmmi nit ñëw ci Seydina Muhammad ko waaye ba ko laajee ne ko lan mooy lislaam mu di ko tontu ne ko mooy nga seede ne yàlla rek mooy yàlla Muhammad mooy ab yonent ngay taxawal julli ponk la ci ponk lislaam lislaam bu doon mbaar moo xam ne ay jën ñoo ko yenn juróomi jën ñi ko yenn asaka ci la bokk Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne nag lu yàlla wax loola la wax lu yonent bi wax loola la wax lu borom xam-xam yi daje wax loola wax moom itam nee azaka ponk bu lislaam islaamukum yaa ayyuha sigaaru liman lahu dunya wa tilka daaru dikrul ilaahi wa salaatun wa siyaam xajjun zakaatun kon nag yàlla wax na ko yonent bi wax na ko borom xam-xam yi wax nañ ko sëriñ bi ñëw fedd li wax asaka nag du caagee ne day loo xam ne nit ki da koy jël ci coobareem euh, ci mbaaxam wala ci jomba ñaawam di ko jox ña ko soob day day loo xam ne sunu borom moo ko tël te da cee gàll ab yar neexaluñ ci kenn dañ cee gàll ab yar ngir bëgg mu lijjanti yu bari lu mel ni ñàkk mën na koo wàññi lu mel ni ñàkk liggéey mën na koo wàññi lu mel ni jëriñ yi ak baayam yi mën na fomp seeni ronkoñ lu mel ni ñi amul dara la jàpp mën na leen a jàppale moom daal crise économique sociale yi nga xam ne moom la nit ñi di jànkoonte asaka mën na ko wàññi yàlla moo sàkk nit ñii njool ñi gàtt ñi xees ñii ñuul noonu la wutalee seen i man-man ak seen i am-am ñii dañuy am lu bari ñii am lu diggu doomu ñii am tuuti moo tax yàlla ne wallahu faddala ba'dakum ala ab jullit nag bokk na ci melo melo yañ koy tagge mooy muy joxe azak hudan wa bushra lil mu'minin alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil axirati hum yuqinun jullit bokk na ci melokaan yi ñu koy tagge mooy ab joxekatu joxekatu asaka la nekk noonu yéefar bokk na ci li liñ koy xase mooy di joxe asaka waylun lil mushrikin alladina la yu'tuna az-zakata wa hum bil axirati hum kafirun asaka nag soo dee bay ba am lu mat nisaab war nga koo génne boo dee sàmm ba am nisaab war nga koo génne boo dee commerce ba am nisaab war nga koo génne moom daal soo amee alal joo xam ne am na ren ba déwén bu dul mbay ak sàmm bu dul mbay alal geneen bu mën a doon ren ba déwén te mat nisaab da nga war yàllaa ko waxal boppam yàlla bàyyiwu ko yonent bi bàyyiwu ko kenn moo leen lim muy juróom-ñetti xeeti nit yoo xam ne ñoom lañuy ñuy jox asaka képp ku ku weddi na asaka warul asaka du farata asaka du ponk lislaam képp koo ko weddi da génn ci lislaam yàlla nañ ci yàlla musal képp koo xam ne tam am nga loo joxe asaka waaye da ngaa gànk da ngaa am daane da am ay daan ci àdduna waaye da am ay daan ci àllaaxira bokk na ci daane àdduna yi yonent bi nee na nit ñoo xam ne dañoo lànk ne duñ joxe asaka suñ borom dana leen nattoo bekkoo am na fu mu waxee ne bu luun ak bahiima yi muy fas yeeg nag yeeg xar yi ak bëy yi bu luun ak ñoom kon sax dootu taw ndax jëppi bu mu leen jëppi képp koo xam ne dangaa génn asaka ngir sàkku toyaabo ak njekk da nga am toyaabo ku lànk nag ne doo ko génne dañ dañ koy foqar ci ci yow xaaj sa alal ca digg ba foqar ci ko ba nga xam ne mbirum yàlla du caaxaan kon gis nga ne asaka soo ko gàntoo da nga am daani adduna bu dee sax ab gox wala mbooloo mu gànt ne duñ joxe asaka bu doon jamono joo xam lislaam mooy àtte dañuy xeex ak ñoom ndax Abu Bakar defoon na ko euh, kon nag daani yàlla yi ci àdduna mooy yooyu waaye su àllaaxira nag képp koo xam ne dafa gànt lu joxe asaka lu la ca seen borom wax ci tëpp ki dul jox asaka euh, daw na yaram te itam diis na lool buñ dee joxe asaka nag li tax ñu koy def la ci jiitu mooy day santaane sunu borom te ab jullit dafa war a ngéejoo jëfee santaane sunu borom ba ca tegee moo soo dee génne asaka day wane ne sa alal yaa ko moom waaye moomu la am na ñoo xam ne seen alal moo leen moom yow nag da ngaa fexe ba moom sa alal boo dee joxe asaka day fóot sa bakkan fóot sa xol ci jàngoro yi nay te yàlla nee na képp koo xam ne. mucc mucc nga ci jàngoro ne ñooñu ñooy ña texe wa man yuuqa shuhha nafsihi fa ulaaika humul muflihun boo dee joxe asaka tam dalay tàggat dalay jàngal joxe wa mimma razaqnaahum yunfiquun te ab jullit rawatina taalibe dafa war a tàggatu ba tàmm joxe boo dee joxe asaka gis ci sawet koo xam ne moom du ko joxe te yor mu ne gànni mën na laa ëppale bu la jaaxal ndax da ngay xam ne alal bonut baaxut alal lañ cay mooy baax wala mu bon te yàlla yow mi ci def lu baax yow la am soxla waaye ka cay def leneen amu amu ca soxla kullan numiddu haawulaa wa haawulaa min ataa'i rabbik wa maa kaana ataa'u rabbika mahzuura soo dee joxe azaka na nga xam ne yaa ngi sant yàlla ndax ñaq ngir yàlla yaa ngi sant yàlla waaye sa alal ji itam soo dee ñuqi ngir yàlla yaa ngi sant yàlla kon boole ñaq ak ñuqi mooy melu jullit mooy melu taalibe na nga xam ne tam asa alal ji am dañu la ko dénk jullit day gëm ne li mu yor alal yàlla la wa anfiqu mimma ja'alakum mustaxlafina fiihi yàlla dala dénk la dénk lam la ci sant da nga ko war a def soo dee joxe asaka tam day sàmm sa alal euh, da koy wattu ndax yonent bi nee na ahsinu amwaalakum boo dee joxe asaka tam sa alal day day yokk di ko wute nu mu la neexee di ko jal defe ne soo ko jalee da koy jël booba xamoo mbirum sunu borom wa ma aataytum min riban liyarbu fi amwaali naas fala yarbu inda allah kon yàlla rek moo la nga jox yàlla rek mooy sakka soo dee joxe asaka day tax nit ñi dañuy bëgg ndax nit ki su ko wóoree ne soo amee mu am soo yokkoo mu yokk dalay ñaanal te itam dalay yéene la nga yore da gis koo xam ne day jox ku néew ñaan nga mu tibbe ci xolam euh, su ko yàlla nangoo amaana yàlla bàyyi la fi te bàyyee la ak sa alal wa amma ma yanfa'u naasa fa yamkutu boo xoon ne li nga xam naa a du'a al fuqara ma al masakin liman qad sabar boo dee liggéey nag nu la soob wute alal doo seet lu dagan doo seet lu lew noo ko amee baax na defe boo ci génnee asaka wala nga tey sànq suñu borom dana ca am soxla déedéet yàlla lu sell lay nangu te alal du xaraam suñu borom du nangu inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba soo yoree sa alal mu laatu wala nga gis alal yi keneen mu laatu baye boo nga xam ne la tax mu laatu moom moo ko def ndax ñàkk a joxe asaka day sànq alal xadis nee na ma talifa maalun fi barrin wala fi bahrin illa bi xabsi zakat kon foo dégg alal du yàqu bay boo nga mën a wax ne ñàkk génne azaka moo ko waral wala ka yàqule bu dee génne itam ma nga dend ñoo xam ne ñoom duñ génne azaka te ñax gu wow day lakk ñax gu kon fexe ba ñu tal yàlla nag mooy nga di leen geesu ñi am di geesu ñi amul ñi amul bu ñu am bu ñu boolee mucc ak xéewal rek dañuy tal mucc ak xéewal képp ko ko am da ngay tal yàlla falyabudu rabba hada albayt alladi atamahum min juuin wa amanahum min xawf kon mucc ak mos soo ko boole rek da kon nañuy dimbali ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ndax jaamu yàlla soo dee joxe asakram nit ki nga jox day tax du la soxare li nga am ndax yor lu ne gàññi dend koo xam ne loxoom jotul ginnaawam te doo ko geesi su amul ndimbalul yàlla mën naa laa añaane la nga xam ne moom nga moom nga am asak suñ ko dee génne dana saafara lu bare bare bare dama ciy tënk rek nit koo xam ne kii jàppoon na ne dundam gépp surga lay doon ñu jàppale ko ba mu doon njaatike loolu asaka mën na ko yalwaan asaka mën na ko wàññi ñàkk liggéey asaka mën na ko saafara ñàkk bëgg a samp kër mu tëla asaka mën na koo saafara ku amul fu mu dëkk amul fu mu fanaan asaka mën na koo saafara ku liggéeyam yàq asaka mën na koo saafara bokk bu bokk ku yàqu tam asaka mën na koo saafara ndax li ma wax bi su fekkente ne doo geesu say bokk mbañeel mën naa dox seen diggante waaye soo ko dee joxe seen diggante mën naa ratax kon nag mbooloo mi nga xam ne ñoo jóg ngir jàpp ci liggéeyub lislaam bii mu jëm ci azaka mat nañoo geesu ko mat nañoo bàyyi xel te li sëñ maam moo doon wax léegi li ñuy wax waqfu mat naa fonk mooy dangay ngay am alal nga tabax imaam bu mag building bu mag tabax ko ne jox naa ko yàlla su ma faatoo kenn du ko donn su ko defee la cay ruus ñu koy jox kër asaka yi mu jàppee ko ci liggéeyu Touba ca kanam wala nga am tool boo xam mat na 200 hectares nga clôturer ko aménager ko ba mel na mu war a mel nga ne jox naa ko kër asaka yi waqf laa ko def su ma faatoo kenn du ma ko doon la fay ruuse ñu koy boole ci liggéeyu Touba ca kanam wala nga jënd ay camion yu bari ñuy liggéey nga ne lu ci ruuse jox naa ko Touba ca kanam muy waqf yooyu ay mbir la yoo xam ne mat naa boole ci liggéey bi ndax lislaam moo ko santaane kon nag euh, yàlla mi nga xam ne moo tax Touba ca kanam di xëy di kont di soññ nit ñi di dajale lu mu am di ko def ci liggéeyu lislaam bi ci kepparu Cheikhul Khadim bi ci biir loola kërug asaka yi sosu ci ndigalul sëriñ Muntaxa te biir na ma ne sëñ Muntaxa talam ak manam ak jotam su ko ko mayoon moo koy téyel boppam waaye du ko dénk kenn